asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi seetaan Tanime TV tey ñu ngi fii ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké yamook la 11 mai tey ji sëriñ Bassirou Mbacke mu sëriñ Abdou Khadir ñëw tàbb si fii ci magam ju tedd ji di sëriñam di sëriñ siidi Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad Mbacke mu am ngan goo xamante ni naka jekk mu màggal gi desee ñetti fan sëriñ bi def fi ñëw yendu si fi ànd ak taalibe ànd ak mbokk yi ak wëllëre yi sëriñ bi saafoonte te ñoom ba ngoon mu delluwaat euh, mu ànd cee nag sëriñ Mourtala Bousso mi nga xam ne kenn la ci njaboot gi di mbokk yi moom it mu ñëw fekkee bis bi sëriñ bi xanaa ñu jox la kàddu rek nga leeral bis lan lañ ci mën a jàng bismillahi rahmaani rahim jërëjëf sëriñ bi maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi nuyu ñi nga fi teewal waa Tanime TV ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli jonante bi di am mbégte lool ci li nga wax bis bu bi nga xam ne mi ngi am ci suñu diggante ñaari kilifa muy sëriñ Sidi mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadoul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir comme ni arab di wax ne koo yónni ku ne day yor jëmmi ka ko ni waaye jàppal ne ngan gu ne noonu lay demee dayoo bi mi ngi toll ci kii ganale ak ki koy gana si ñi ñu gën a féeteeg mag sëriñ naa mi ma dendal dana ko xam buñ fàttalikoo daa nga dégg ñu ne sëñ Abdul Qadir Mbàkke sa xaloon na di ñëw ci kër sëñ Abdul Ahad nee nañ ma def si na ko fii ba tàyyi ci kër gi defe na ko belal ak fu bari te lu limoo li mu doon doon daanañ wax ne booba euh, sëñ ab Lahad ak sëñ Abdou Khadir daana sonn ci ñu ëpp ci mbokk yi mu ànd ak ñoom ak soppe yi ak taalibe yi xëy na ñun booba danañ daw waaye suñuy waajur xam naa yu bari daanañ ko fekkee booba loolu nag kóllëre rek moo ko waral ku ne xam na ne sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadir benn lañ du ñaar nit kenn nit lañ buñ bokkee dëkk ci dëkk bi seeni kër jàkkaarloo ci penc mi kenn ki saxal dem di seeti ki ci des loolu am lu muy wan nit ñi la ak bokk dox moo koy dundal ak wax ju baax loola dafa mal ni rek dañuy wax ne taarix yooyu dana sow taarix mooy nettaliwaat boppam tànk yi tey noonu rek la deme looloo waral comme ni nga ko waxee sëriñ ba Bachir mi baaxoo ñëw fii ci kër sëñ Sidi mu Cheikh Abdou Lahad at mu jot ba nga xam ne dugg na sax ci calendrier màggal gi nga xam ne ci wattaay màggal gi lay doon looloo waralit sëriñ Sidi gis nga ni koy waajalee ku ne xam na ne moo mag sëñ Bachirou doon ci ay kilifaam waxuma la moo ko mag waaye moo mag sax ay magam yu bari waaye boo xoolee tey wàccuwaay bi ko jox da xam ne day mel ni wuutaliwu ko ak sëñ Abdul Xaadir mu fi doon ñëw yu mag yi indi ñu koy ñu koy teertul ngir yittewoo gi mu ngan gi bi ñëw maag sëñ Bachirou ñoo ànd njëkk muy agsi woo na ko téléphone di ko soññ ak di ko laaj foo loolu lu muy tegtale mooy yittewoo gum koy tëwoo bu lépp jàlleet kóllëre gi tax muy def loolu ak fàttali démb ñun ñi nga xam ne ay wëllëre sëñ Bass lañ ngeen ko xam ci moom dara tuuti xam nañ seen diggante jege nañ lool mu bokk ci ñim wóolu fonk ko lool ñu seq yu bare bare bare bare yoo xamante ni jàpp naa ne ñoo ko wax ci télé loolu ku leen xam ñoom ñaar rek da nga ci xam dara man mi xam naa ci lu bari lool bañ naa ko bu ma koy laaj sax moom laa koy laaj lañ seq kawe na fi mu ko teg it kawe na lool teg na ko fa ngir Cheikh Abdoul Khadir Mbacké mi nga xamante ni wax naa léegi digganteem ak Cheikh Blaat waaye teg na ko fa ngir yàlla déggale gum leen déggale ñoom ñaar ndax ak bokk ku amit déggoo da ci am waaye nag teg na ko fa it euh, ngir wàccuwaay bi nga xamante ni Serigne yàlla jox na ko ko ci yoon wi ndax ku ne xamante ni kaddu yoonu murit moom lañ ko dénk moo waral nag kon. Euh, mu ngi xool ci moom ñetti ba yooyu yëpp ba tax na boo ko seetloo li ëpp sax ci li muy def day leeral moom la ci yebal rek mu teewal ko ci defal ko ci day mel ni sax nangootut sax ñoom ñaar ñu bokk benn jotaay maanaam fépp fépp fu mu war a waxee dara cam teew fa de danaan ko loolu doy na sëriñ si di noonu la gise bis bi kon ne xam na ne day ngay xam ne sëñ Abdou Khadir la bëgg teral moom la bëgg a ganale moo tax yëg-yëg bi kawe lool sëñ Bachirou ba tey loolu la jàpp bu ngeen gisee bi bi ñëw boo ànd naag ñu ëpp ci ay bokk yi ak mbokki taalibe bi ak soppe yi bu ma ci tuddee sunu bu baax bi toogoon fii ci suñu wet léegi sëñ Basiru Buso moom sëñ Mbàkke Kan sunu maam sëriñ Moodu Maamun Buso mais moom sëñ Moodu Buso bu mag moom sëñ Mbàkke Buso di imaami Tuuba sëriñ naa Buso moom bàyyi sëñ Maram Buso moom sañ Mbàkke Kan ni ak yeneen bokk yi nga xam ne gis ngeen ñu toog fii daanaka bu amoon li ko gënal buy ñëw mbokk yëpp rek lay àndal ñëw sëñ Modou Xabaan mi toog nii moom sëñ Basirum sëñ Modou Xabaan léegi nii rek la ne ma ko mu ñëw ngi fi gis ñëpp it noonu lañ fi ñëwee sëñ Cheikh naa Mbacke Tafsir sëñ El Hadj Mbackeem sëñ Abdourahmane moo toogoon sama wet léegi sëñ Babacar léegi sëñ Baye Fallou Mbacke moom sëñ Baara moom sëñ Mamour Diarra ak ñi mu ñëpp day man le moom tam kum ja xam ne rek bu ñëwee danañu fàttali li nga xamante ni jéego yu fi daan am dembu rek indaale na la loolu nag muy lu am solo muy loo xam ne war na ci jàngate ñun lu bare bare bari mooy sëriñ bi li nga xamante ni moom la suuxatoon ci njaboot gi lim ca ñaanaloon leen ko yàlla ne yàlla na ko yàlla may wahab lana zuriyatan tuddiimu al amal saalix yaa qadiimu yàlla nga ma may njaboot gu baax koo xamante ni dañu saxal di def lu baax yow yàlla miy maye waxaat nañu it yow yàlla yàlla nañu ko may sedd yu tedd yoo xamante ni dañuy yeesalaat sunna sunnante bi sallallahu alayhi wa sallam zuriyatan tayyibatan tujaddiduna hajan nabiyil Mustafa tastahidu loolu nañ rafet njortu ci ne am nañ ci yëg-yëg ci jotaay bi ci diggante ñaari ñi nga xam ne ñoo ko seq tey dañ doon ñaari sëti Cheikhul Khadim muy Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ñu ngi ñaan bu baax yàlla gën ko fa yàggal gën ko may wér muy Cheikh Mouhamadoul Bachir mi moom Serigne Abdoul Khadir ba tey loolu lañ koy ñaanal noonu lañ koy ñaanal it ki nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñaar ñëpp boole leen jaboote ñoom ñëpp muy Cheikh Mahmadul Muntaxa ak mboolem kilifa yi yoonu murit gépp ak mboolem jullit yëpp jëf ju baax jooju sëñ Tuubaa doon ñaan jotaay bi sembule na ko dara gën rafet ay bokki jullit nga wootente ngir teralante loolu xam nga ne ku ne xam ne ne seytaane musta am wàccuwaay ci kër sëñ tubaa waaye nag jëf yu baax yi waa kër tubaa baax baaxoo def rek bokk na ci li ko waral ci jëlee ko ci njàngaleem seen waajur woowu sëriñ Touba Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu mbooloo mu daje ci kër teralante wax wax lu baax rek bokk yëpp daje nga xam ne bu ñëpp teewut it kër gu ne jàppal am na ku ko fi teew teraanga ak yaatu bu baax a baax ubbi kanam bu baax a baax comme ni ñu ko sëriñ bu digale rek ci mun nax jox ko daal xaaj ni ñu ganalee gan wa akrimil adyaafa bi tarxibi wal bishri wal kiraaw bi tarxibi nee na gan dee ko teral li ci jiitu mooy ubbi sa kanam bernde yi yëfi ndokku ndaa yi dog ca topp ak lépp lu baax rek loolu ku ci ne xam na ne lii kon euh, jëmmal na ko ngeen xamante ni daal kon lu baax a baax la lu yàgg yàgg la loo xamante ni ku ne xam na ne aada lu bokk ci sunna su bokk ci sunna su yoonu murid la muy ay nit ñu baax ay bokk di dajalante di ganalante ku mën a fàttaliku da fàttaliku sëriñ bi bi mu demee Daaru Salaam doon gën a ji maam Cheikh Anta loolu mënees na ne lii sos nañ ko ci jotaay yooyu. ku mën a fàttaliku da nga fàttaliku li am ci diggante mag ñi ginnaaw sëñ bi sëñ Modou Moustapha dem na euh, seeti rakkam Cheikh Modou Fadil fàttaliku woon ngeen ngan ko mag a mag njabootu ko sëñ Touba gépp sëñ Fallou jiite woon ko suñu waajur yu bare bari boobu teewe woon nañ ko mooy bi sëñ Modou Moustapha di sañ ci Taïf yaa ngi koy fàttaliku ci la way yooyu bari yooyu nga doon dégg am ku ne xamante ni ginnaaw bi li ma wax léegi sëñ Abdou Khadir cam yaataloon ko lool lool lool lool moom sëñ Saliou sëñ Abdou Lahad gi waxi nopp kër sëñ Mourtala Deqli ñun nee nañ ma gane si woon na pour 74 ngan gu siiw a siiw kër ne xam na ne it li nga xamante ni baaxoo naa am it ci diggante kilifa yi diine yoonu murid bi ak mbokk magi taalibe yi loolu kon sunna la soo xamante ne su fi yàgg la mooy seeteente am na fu nekk dégg nga ko ba tàyyi sëñ Mourtala moom sëñ Touba xam nga ne mujj gi bi fi sëñ Abdou Khadir jógee dañ daan wax ne lii ko taxaw na gën a ñàkk jot dafa fas yéene fi mu daan dem fépp mu dafa dem waaye it fi sëñ Abdou Khadir daan dem mu da ko kon loolu lu am solo la yoon fu mu àgg ginnaaw yàlla la ko fi àggale mooy jokkaloo bu baax a baax ak jog ak tasaare ndax am na solo ndax taalibe yi jege leen mën a wax ak ñoom eh, nekk noonu ba tey bokk yi nga xamante ni sëñ bi li sëñ Tuubaa waxoon ne ñoom rek ñoom lañ am na ngeen leen jàpp ndax ñoom ñoom laa am ndax nit kenn mënu ko tàggale ki mbokkam lii bokk na ci li nga xamante ni xam nga li leen dajale te loolu nag mooy yoon wi ku fi jële rek dara day mel dara dootu ci des moo nañ ko sant yàlla bu baax a baax te ñaan jotaay yu mel nii am ci niveau yëpp rek ni mu baaxoo amee te xam ne sunu sëñ tubaa lañ ci fàttali rek diyaafa nganale googu nga xamante ni def defoon na ko defoon na ko rakkam maam Cheikh Anta ginnaaw bi naka jekk sëñ Tuubaa xam nga léppam sax moom bisam yëpp rek ay iid la woon noonu noonu la ko njabootam gépp wuutoo ci loolu xam ngeen ne ginnaaw bi jàpp naa ne jotaay bi it xamal ne ci loolu rek ci lañ ko sëñ ko waral ci loolu rek ci lañ ko sos kon ñu ngi ñaan yàlla gën leen fee yàggal rek muy ñu suñ ñaari kilifa yooyu Cheikh Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadoul Bachir mi yàlla gën a boole bu baax a baax yoonu mu murit def leen ñuy benn alhamdulilah benn lañ waaye lii moom firndeel rek juy wane loolu ju koy jëmmal rek waaye loolu moom laneen mënta am ci yoon wi jërëjëf ñoo ngi sant bu baax a baax sëñ Bas comme li ma la wax rek bi mu ñëw kum xam ne rek dana yoon wi dana ci jëmmal dara rek woon na la moo tax boo ko xoolee kon yoon wi ñu ko composé Seexul Xadim ay bokkam ay seexam yu mag ay taalibeem yu mag ca ñooñu ku ci nekk rek jàpp naa ne néeg bi li mu ndaw ndaw jàppal ne kenn mën na mën ngaa jëmmal loolu fi nekk loolu jàpp naa ne buñ ci yemoon rek doy na sëkk ak réussiru ndaje mi résultat bi doy na sëkk rek dajale fi ñu mel nii ñu bokk toog benn jotaay jërëjëf sëñ bi jërëjëf sëñ Mourtala xam naa wax nga fii léegi ngan yi nga xam ne mag ñi dañ ko daan def maam Cheikh Anta ak sëñ Fallou ak yooyu waaye ngan yooyu amoon nay taarix yu ci daan génn mooy sëriñ bi daana sadd ay woy jëmale ko ci kee wala kenn ci taalibe yi sadd ay woy ndax da koy taarixal ak yooyu ndax <laughs> loolu moom xanaa dañ la koy delloo rek sas la ko ndax di nga ci def ay woy incha allah baax na incha allahu taala am nañ ci yéen waaye ku ne xam na ne yooyu weesu loolu nga wax lu ne am na ci waxuma ay woy sax waaye bind am na ci boo fàttali ko sëñ bi moo ko jëkk a junjoo doon te sëñ bi kon kenn xamul lim ci jublu di yaafatul muxtaari fi shawaal yi xam nga loolu tombé na ak nganuk daaru salaam gi nga xam ne shawaal la woon li sëñ bi wax nag li mu tekki moo ko gën a xam moom ak lim ci jublu waaye rek ci saahir si buñ ko bëggoon a tekki man la ne tawri tawri yi am na ci loolu di yaafatul muxtaari fi shawaal yi tashhadu annahu habibul waali defe naa sëñ Modou Moustapha comme ni nga ko waxee xam nga ne bi mu gën a jee bi ko njabootuk sëñ Tuubaa gën a jee sëñ Fàllu jiitu ko àndoon nag mag yi yu bare bari ci bokk yi comme bis bii ni mu demee rek ca sëñ Modou Moustapha bi gën la booba day doon doo ko sëñ ci taayif defe naa ba ne koon tuddal ma dëkk bi gis nga béy di ci sëñ Fall waxoon nga xam ne moo ko tudd yaa taayifan yaxsha nawaa'iba dahrihi lus bil xalifatil Moustapha fi taayifi fi taayifi googal mooy taayif nga ne moom lañ ko tudd boo fàttali fàttalikoo ba ci bokk yëpp maam Cheikh mbay mu baax mu mag moom moom Louga sëñ Fallou demoon na fa liñ seqoon bari na yaa ngi fàttaliku bayit yu rafet yooyu mu ko gàttandoo woon donte bayit yu xaw yàgg la sax lillahi qawmun isa xallaw bi manzilatin xallan nada wa ala fil jawi atwaaru bayit yu yàgg nag la loolu waaye loolu la maam Cheikh Mbaye loolu la ko gàttandoo woon loolu kon taarix la woon boo xam ne bu yàgg-yàgg la li mu doon tegtale rek mooy jëmmal rek jotaay bi ak taarixal ko ba kenn doon ko fàtteete loolu nag naka jëkk mooy am incha allahu taala moom la sunu kilifa yi bëgg dundalaat rek barakallah jërëjëf mbokk yi ñuy sant bu baax a baax ndax lii eh, eh, mbokk yi nañ ci jàngwaat waaye taalibe yi ñoo ci gën a jàng bu baax a baax ndax buñ gisee sëriñ bi mu ñëw fii muy sëriñ si Ahmadul Basir ak sëriñ si di nga xam ne taxawaayam ku nekk xam ko ci dëkk bi mu doon kilifa doon mag waaye moom mi nga xam ne mooy caatu sëriñ Abdul Xaadir mu ñëw fii loolu day wane ne ñëwaaleel ne ñëpp ñëpp la ñëwaaleel moom mii di taawu sëriñ Abdou Lahad nga xam ne mooy kilifa kër gi kon dafa mel ni loolu njàngin wu rëy lañ ci war a am jéegoom yi ne wax yàlla jéego yu rëy la jéego la yuy defar jéego yoo xamante ni tamit ñëpp ko rafetlu ñu ngi ñaan suñu borom defal ko ci ay maqaama ak daraja te yàlla yàggal leen bi ba nu yàgg sàmm ndoonoy sëriñ bi nga xam ne moom la fi bàyyi di ñaane tamit mbokk yi fi teew yëpp suñu borom defal leen fan yu gudd ak wér ndax lii rek la mbokk di jariñ ak taalibe di jariñ bu kilifaam jóge mu ànd ak moom di ko defaral ba kër ñu waññeeku di ko xoolal te di ko mbokk mu baax waxe woon sëñ Sidi moom kuy ñëw fi moom dina la teeru teral la boo demee mu waggaral la sab der yàlla na ko fi yàlla sàmm te wér barke sëñ Tuubaa